à la base on va les par des activités citoyennes à partir de la semaine prochaine incha allah di ngeen gis loolu leen gis mooy que ñoom dinañ liggéey mais ñu aussi sur le terrain nañ liggéey dinañ dem accompagner les populations sensibiliser leen képp koo xam am nga jafe-jafe ñun ak si lu ñu mën ñu jàppale leen lu ñëpp jot lu ñëpp bokk ñëpp jot si mais ni ñu koy doxalee mooy des activités citoyennes euh, si quartier yi di ngeen gis ni quartier yi ñun li ñu mën mooy dañ dem jàppale quartier yi fépp koo xam ne jàppale ñu bi tilim na ñu jël suñu doole suñu ñax def ko fa pour nettoyer fan yi di ñëw incha allahu rabi di ngeen gis ay vacances agricoles patriotiques yoo xamante ni patriotes yi ñoo koy organiser jeunes yi nga xamante ni liggéeyuñu ñu jàppaleen ba au moins ñu mën def ay activités yoo xamante ni day wat si ñoom di ngeen gis ni école bu tëjee incha allahu rabi dañ programmer ay vacances euh, cours de vacances yoo xamante ni dañ jàppale xale yi nga xamante dañoo faible ñu mën leen préparer